lu fi xew man danaa ko wax. seexu taa booy ci koor gi. seexu taa booy ci koor gi. kii kii Bombardier la Bombardier ak Eumeu Sène. Bom Bombardier Bombardier kan moo ko daan kii kan la. Eumeu Sène si Eumeu Sène la. Eumeu Sène moo ko daan. kii kii arrêté la. xamoo dara pare. xamoo dara xamoo dara ci lamb boo pare muy wax. waaw tey tey tey tey tey bi ñu jox. tànnama de jaayuñu. déedéet jaayuñu jaayuñu. man man man tey damaa woor de tey damaa woor. ñoo sonn ñoo sonn. waaw dañu noppal dañu noppal. dañoo woor. ah yow da nga dem noppal. waaw ñun ñun ñun ñu jaayal la fii. waaw dama dama nelaw après ñun ñu jaayal waaw waaw. dama dama dama nga tëdd ñun ñun ñun dañoo woor tey duñ dem fenn fenn fenn fii la ñu toog jaayal la. dégg nga Seexu. dama xala. bul dem si kaw xale bu jigéen boobu noonu ta ta ta tam tëjoon na si biir kii dafa bëgg jigéen kii muu bi muu bëgg jigéen la waaw waaw dama dama mais si Mbàkke yow yow yow amul lu la jaaxal loolu la wañaan mi daa moom waaye waaye loo ko wax danaa waaw danaa nii yow wañaan xanaa xanaa day day day dégg li wañaan wañaan wañaan wañaan nopp bii nii nopp bii nii moom muuma waaye nopp bii nii muuma xam nga wañaan daa muuf ah. yaa ngi bàkk démb waxoon na wax nga dëgg moo tax yow boo wax du ko dégg waaye man su ma nee wax danaa danaa wax. ñaar nopp bee mooy dégg. si ma jaay jaay bi jaay jaay ñaar yooyu moom jaay ñaar yi yow benn man benn ñu ku nekk jaay sa bos. waaw yow da ngay wax fële moom moo wax fii. tàndarma tàndarma tàndarma. aywa aywa jaay tàndarma aywa jaay ta. Seexu nakate nakate nakate maa jaay waa côté bi dégg nga maa jaay waa côté bi. xew man danaa ko wax ci la sa bal. ah li ma bal waa Sénégal ñoom Sadio Mané ak ak ak ñoom ak ñoom ak ñoom ak ñoom kii nii. Tony Silva taxaw xaw xaw damay songale benn damay def rek. waaw songale. joo joo tuule ëllëg ñëw gaw gawal. ci ma bu ji sama tàndar ma. man sama bos laa yor sama bos kese laa yor. waaw taandaar ma. ay wataandaama Papa Laye yow yow xuloo na ak yow maa la abon sabal jëm nga bañ ngay dem al Cheikh da ngaa seetaan ay wataandaama kay kay ay wataandaama damay damay damay seetaan ay wataandaama ay wataan fay saa fay saa yow yow ni nga ñàkkee fayda yow yow yow ah man sax xale laa damaa woor te yow wóoroo yow ñi nga ñàkkee indi indi indi indi may ma yow ñi nga ñàkkee fayda. ta ta ta suukar yi da ngaa wóor maa bëri. tey saa yi metti metti dégg am am maa may ñaari dégg yow da baax dégg yaay sama xarit dégg nga fay saa naka te yaay sama xarit. aywa taa café bi am sax suukar. kii kii daa bëggoon nga may ko nga moo tax mu ñëw ba fii. laaj ma la laaj ma la après mu demaat. laaj ma la laaj ma la laaj ma la aywa taa ndaar ma aywa. yi ñu bëggeel yow man sax damaa woo damaa woo sax man man sax damaa woo tàndama cent franc tàndama fukki dërëm yow sax naa ne waaw ma yow yow yow yow ñu nuyoo yow ah, yow yow keroog keroog keroog maa aboon sa bal bi nga bañ yow anamu ana sa bal bi anamu sa daa toj si si xool ci téléphone bu rafet bi mu lu waa ñu may ko tànnal lu waa moom na nga may ma. si yow man ngay may. yow am sa am sa téléphone. après suñu baax man kër ga bu ñu àggee muy àgg foofu. yow yow nga ah, suñu baax nga ku mooy xaritam da ngay dee. ah ah lebal naa la ko dégg bu sa nga jox fii fii fii ngeen jëm wala da ngeen demaat waaw waaw kon kon kon dinaa yow yow su ma ko tànnama ji jeex na tàkk tàkk tàkk. si suba booy bi ah papaam da am xaalis bu ñëwee daf ñuy may daf ñuy may ay bonbon. ñun nañ koy waaw jeex na waaw. jeex na de waaye waaye ni mu si si na kay laali ko si mbaa li na de moom daa yaakaar ne. yow ni nga yow ni nga tapete. yàgg si mbaag yow ki nga ñu ko jox ba dee ñëw si mbaag kii la ko jox kii nii sama rakk bi nga ko ko jox kii la waxtaanal kii bi nga jox ñaari jox ñu foto jeex na tàkk di nga maye di nga maye gratuit xool xool laa pay awa awa. non kese la awa awa. ay sama gis nga laa. yow ba xam nga xam nga wala xam nga. xam nga xam nga xam nga yaa may rey xam nga yaa may rey. xam nga xam nga yaa may. yow yow eh. Simba kii daw na daw na. xam xam xam dàqalu ko xam xam ah xam xam xam dàqalu ko. maquillage maquillage la lii. maquillage la lii rafet na de lii rafet na de sama kanam. wàcc wàcc nañ kii kii xoolal xoolal si mag si sikkim bi daaw na ah maquillage ma rafet na rafet na rafet na da ngeen def bi rafet daa gudd. si màgg nag si màgg nag si màgg nag wax benn wax un deux dama compte sama bopp trois quatre cinq dafa yow tamit dafa six waaw dafa sept dafa dafa ko man sept e ko ko ko ko ko ko xale bu jigéen bi dafa kii dafa